député te woowul n'importe quel député taxawaay gi mari la gis tax mu jox ko nag am na société boo xam ne mhm. war na fay impôt plus de cent cinquante milliards te fayul lu ni toll am na ñoo xam ne ñi ngi nangu seen suuf foo xam ne population ba lan lañ leen séddale ay 4 hectares ay 120 li ci li ci gën a grave euh, saa mooy tey senegal ñëpp dañuy xam ne man ak sama morom amuñu fu dëkkuwaay ñu mhm. ngi wut suuf pour dëkk mhm. benn imaam moom laa xaw a yab tuuti mu am 40 hectares am ne da ko fay denc ba suuf gën a cher mu jaay ko. déet wala di nan la def ba am di xaar ba ba am 40 hectares yooyu ci réew mi. xam nga xam nga loolu lu mu bëgg c'est très grave bëggul pour nit soxla mu jaay la de. Mhm. booy xool fii ak bu nguur gi jàlloon ñaari at lañ ciy teg wala lu ko manqué comme ni Mamour Diallo. def ak mhm. Tayrou Sarr <coughs> ñu jékki-jékki ne la état daa soxla foofu ne dañ leen dédommager. am na fa mhm. dégg nga voilà heureusement. dañ ma dagg. waaw 15 hectares. yooyu la ñuy def maanaam daal ne état. moo ko soxla bu ko defee xëpp leen xaalis bu dul jeex. waaw parce que gars yi gis nga quoi. non bien sûr. d'accord maanaam dañoo yoroon ñoo xam ne dañoo dañoo dañoo dañoo fifi dañoo xiif dañoo dañoo yërëmuñu askan wi. Mhm. maanaam askan waa ngi dee askan waa ngi torox bi mhm. ñuy toj cité Tobago fii kan moo wax mhm. ñan ñoo wax ci ñii nga dégg ñuy ñuy wax tey naan soi-disant avocat lañ mhm. wala ay mag yi notable lañ wala fana nangam te loolu ñooñu seen benn parcelle lañ amoon dëkkal fa seen njaboot même burkaat gi bi ñuy toj kër jàmbur yi di ci dóor koo xam ne góor lu ba kuulee nga ñëw toj ah léegi yow nga yor benn terrain ñu ñëw ne nañ ko teg yow wala nga jóg yow am kër goo dëkk ñu nañ laal ngay taxaw gis nga xam nga mbir mi li ci neex mooy. comme ñu jubadee mer. Mm-hmm. loolu réew maa ngi dox. Mm-hmm. ñun nañ fexe ba ñi jub. buñ mer rek. Mm-hmm. c'est important mu nekk lu lu am am solo. Euh, merci saa wolof ci euh, jàngat bu am solo bi damay jox imam Al Amin Dramé moom it mu sànn ci ay kaddu ci décision yi nga xam ne nguur gi jël na ko ci lépp li nga xam ne moom mooy arrêté lépp luy travaux euh, ci littoral bi waaye yamatuñu nag foncier bi moom dañ ko war a xool ndax dem nañ ba Mbour 4. Euh, gis nañ aussi euh, pôle dagg xolpa coow la fa nekk litige foncier yi bari na yaa ngi koy gis ci waa wan pël yaa ngi koy gis fépp ñu bëgg a defaataraat li nga xam ne moom moo di suuf si Sénégal ngir séddale bi wala amin bi mu doon lu am solo imaam waaw ndeysaan euh, président Bachir keroog bi ma gisee mu wàcc bett bett mi ñëpp foofu mhm. sama xel dafa dem ci Omar ibn Abdul Aziz <laughs> nga kilifa bul di basé wu ci renseignement yi kese kese li mu wàccee foofu noonu léeg-léeg na jàpp guddi gi dox dem milieu yoo xam ne fooguñ ko fa woon mu mm-hmm. bett leen parce que loolu mooy tax nga xam loo xam ne euh, nit ñi duñ la ko wax mais di xaar renseignement yi rek ak ak ak rapport yi kese-kese mm-hmm. baax na mais loolu doyul mm-hmm. donc loolu mu def nit ñëpp xam nañu ne li mu def lu rafet la euh, lu jaadu la wax dëgg yàlla néew ju doole ji moom bi ñu gisee loolu kontaan nañ seen yaakaar dundaat na. Mhm, gis nga euh, borom doole yii nii suñu taxawul dëgg-dëgg waxuma la sax kii mais genn wàllu réew mi dinañ ko jël. Mhm. parce que suuf dama jàpp ne nit benn nit kese kese. Mhm. am lu ëpp lu ëpp fukki kër. jaadootul dëgg la. am na ñoo xam ne tey ci réew mi waratuñu ñu leen di daggal suuf parce que li ñu am doy na ba ëpp. te ñu ngi continuer di laajaat. am na ñu tabax kër fii ba ba doyu leen imaam dogu ma la de am na ñu tabax fii ba doyu leen ñu ngi tabax Espagne. voilà waaw léegi euh, ci jamono xiif ma ci jamono Seydina Omar. Mhm. borom alal yi def ne kenn du fi jënd yàpp ñaari bés yu teglante. Mhm. comprendre nga gis nga loolu sax mooy jamono xiif bi baa doole yi amatuñ luñ jëndee yàpp. Mhm. léegi borom alal yi rek ñoo mën a jënd yàpp mu ne kenn du fi teglante ñaari fan. boo jëndee yàpp tey loo nekkal milliardaire mais boo lekkee yàpp tey doo ko lekk suba. Mhm. parce que mu ngi soor ñi amul. tey am na xeetu nit woo xam ne amatuñu waratuñoo toog di jënd suuf fii ci réew mi. beneen bi yenn suuf yi yoo xam ne ay génération génération ñoo ko moom ñu jox ko benn nit kese loolu jaaduwul. dégg nga mhm. tool yoo xam ne suñuy maamaati maam ñoo ko doon bay. dégg nga ay famille yu bari ay génération bay ko ñu xëy rek jox ko Mouhamed lamin muy hectare yoo xam ne kenn xamul nu mu toll ñeneen ñëpp ñàkk mais loolu loolu maanduwul gis nga affaire yi maa ngi dégg ñu naan am na suuf soo xam ne dañ ciy tudd El Malick waaw di waaw gis nga yooyu noonu eh, gis nga suuf sa sa géejawaay la dafa gis nga waaw xoolal bu ca géejawaay bi da koo jënd waaw ne même <laughs> même su fekkoon ne sax daa bokk si ñu ñuy kii mm-hmm. état loolu occasion la mu njëkkee ci ñoom ça ah, ñaari saxaaba yii nii mhm. def naa ku leen jàngul dégg nga leen mhm. abu hurayrata mhm. li ëpp ci xadis yonent moo ñu ko moo ñu ko nettali mais est-ce que xam nga alalam yoo xam ne moo ko moom Seydina Omar nangu na lu bari ci alalam mu ne ko lii maa ko liggéey mun ne ko tuumaaluma la mais lii il faut comme leerul sama bopp bi ci baytul maal la jëm <laughs> waaw abu hurayrata laa wax de Seydina Omar nangu alalam delloo ko ci trésor xanaa loolu moom loolu yéeme na mhm. keneen ki jàmbaari lislaam nga xam ne def na téeméeri xare nga xam ne Seydina Omar da koo folli ndax ndam yu bari yu mu am muy Xaalid ibnul Walid mhm. Seydina Omar nangu na alalam mu expliqué ko mu ne ko sawaay man daal tuumaaluma la ne alal ji ni nga ko amee moomul waaye man daal dama fi nekk pour la julli di seen alal mhm. jëlal alal ji ne ko nombre bi nga ciy jël li ci des mu nangu ko delloo ko baytul maalil dafa am principe boo xam ne kii jiite dafa am sañ-sañ di ko jëfandikoo mooy min ay na lekk haada mm-hmm. foo jëlee lii foo jëlee lii parce que dëgg-dëgg ki nga xam ne fukki at ak ñaar bi Macky Sall di ñëw boobu mu ngi doon mu ngi doon laxasu ca giri pali ba mm. pale ba sol benn t-shirt am di dugg car rapide comme tout le monde léegi fi fukki at ak ñaar mu yor ñu koy tudd ci ay milliards mais min ay na lekk haada jaadu na fa <laughs> dégg mais min ay na lekk haza jooju mhm. moo tax Macky Sall dañ ko war a topp dégg nga juróom-ñetti milliards yooyu mu doon wax moom la indiwaale mais loolu euh, Ablaye Wade nee na mayu ko ko léegi dañ koy bàyyi mu dem gannaaw gi fi euh, maanaam bi mu jëlee réew mi fukki at ak ñaaram yii nii fu ne yaa ngi dégg ñu naan am na fa kër mhm. xoolal àll ba mu jënd marok ak am ko ci dëkk sangam am ko ci dëkk sangam ku ne xam ne ne loolu sawaay loolu ak càcc la mhm. topp ko dafa war man waxuma ay rey nit ak de mais alal ji nga xam ne dañ koy tudd di tudd Macky Sall loolu dañ ko war a delloo si ci réew mi ni ñuy toppee suuf si ni toppee suuf si mhm. donc loolu li Bachir di def ak président Ousmane Sonko képp kuy gor di jullit bëgg njub bëgg baax yaa ngi leen ci encourage mhm. li ñu leen di ñaanal nag mooy nañ dem jusqu'au bout mhm. te yaakaar nañ ne dinañ dem jusqu'au bout parce que problème li neex mooy président Ousmane Sonko genn kër la am kër gi bi mu ko fayee yàggut beneen bi Bachir këram gii nii ay millions ay millions la bor bi mu ngi koy fay kon ñoom amuñu suuf waaye ñoom ni ñàkkee suuf mais Amadou Ba noonu la bëree suuf ah. dégg nga Amadou Ba noonu la bëree suuf far ba noonu la baree suuf te ñoom euh, fi gars yi liggéey rek fa lañ liggéey nen lañ def ba am suuf soosu. wallahi suuf sii nii nañ ko topp man man dama jàpp ne genn sàcc gi ku ko sàcc cim réew. suuf si nga jël ko noo ko moomeewul bokk na ci sanction li ñu la war a teg mooy ëllëg réew mi doota fi yor responsabilité mhm. amatuloo droit créer fi parti mhm. parce que deniers publics ku ko sàcc mooy kii indi drogue ci réew ñoo yem mhm. ñu dañ leen war a teg sanction yoo xam ne xel dootu ko xalaat mais su fekkee dañ leen di jàpp nii tuuti rek sànni leen ci kaso bi quelques mois ñu génn wala quelques années ñu génnaat commencé di lekk seen xaalis fekk xaalis ba rënk nañ ko loolu sanction yooyu méttiwul ñi jël suufi réew mi jël alalu réew mi sanction yu méttee métti la ñu war a teg ci seen kaw mhm. te jàpp naa ne bokk na ci li ñu leen war a tegal mooy dootuñu nekk njiit ci réew mi mm. dootuñu yor parti ci réew mi xam nga maa ngi koy wax ne bu lislam da nga bëgg ñu dissoudre parti ba waaw mm. non non parti bi sax dina tas boppam ñoom seen parti mais képp koo xam da ngaa sàcc alalu réew ay milliards nga sàcc ko ci réew mi mais kooku waratoo jiite dara ci réew mi benn fonction waratoo ko yor euh, maa ngi ko doon wax jamono yële Zeynab. vas-y ma képp koo xam ne da nga tuumaaloon président Ousmane Sonko. viol. Mhm. te amu andiwoo preuve. xam nga bokk na ci lay sanction yi la l'islam di teg. Mhm. mooy dootoo mat seede ba ilaa yomi diin. Mhm. ku tuumaal nit njaalo. ku tuumaal jigéen. tuumaal nit viol. te indiwoo preuve. bu l'islam doon àtte yow ba ilaa yawmi diin dootoo mat seede dootoo mat témoin ci dara. loolu ci sanction yi ci la bokk. ñaata nit ñoo tuumaal sonk loolu. Mhm. ñaata xaalis lañ ci def ñaata plateau lañ ci def. te ba ilaa yomi dini du ñu indi preuve. Mhm. kon dama ne li gënoon sedd ci ñoom. mooy ñoom ñëpp nañ dem jéggalu ji sonk mhm. man loolu gis nga xalifa loolu ba léegi man dama koy wax de. ñi ko képp ku mës a tuumaal loolu demal jéggalu ko. maa ngi dégg xale bu jigéen boobu noonu tampi tampi. Fouta tampi waaw waaw tampi tampi di jéggalu moom it. Fatoumata Ndiaye Fouta tampi. waaw nee na sax jokkoo na ak moom. waaw. jokko na mais mais c'est que xëy na sax ay dóor laa wala yeneen sax man sax awma ci moom confiance mm-hmm. dëkk la mais loolu mu def ci ci zahir li ñu mën a jàpp mooy képp ku mësa tuumaal président Ousmane Sonko njaalo wala viol demal jéggalu ko mm-hmm. publiquement parce que publiquement nga ko tuumaal comme dëkk bi àtte wuñ fi charia c'est le minimum mm-hmm. bul rëy rëylu bul jéem a dugg ci yeneen détail demal jéggalu ko mu jeex kon alalu réew mi ku ko jël man jàpp naa ne liñ la war a teg ay loi yu mit bokk na ci nga xam ne dootoo jiite dara ci réew mi mhm. c'est important imam mu nekk lu am solo et je pense que ni yëf yi buñ ko toppee te toujours li may wax mooy suivi waaw mhm. ah, suivi daal na ci am te mu bañ a am parloo ci kenn mhm. même bu fekkee sa doom daa def sax nañu ko teg ci yoon parce que boo xoolee euh, li fi joto jotoon am parloo gi moo ci ëpp jëlaay dossier teg ci loxo ndax sama njaboot la kii def nga nga défendre ko kii def même chose bi nga jàpp ko tëj ko ci kaso bi bu ñu ko dindee ci yëfi rek je pense que ni jub-jubal dina am mm, et puis dina dina permettre Zeyna bu bëggoon def suba mu ne ah bu ma defee lii moo ma ciy fekk parce que Sénégal sanction moo fi amul de Zeyna day déraper léegi ci tali bi ak otom ñu jàpp ko mu dem ñu defal ko intervention ñu ba ko mu ñibbi suñ ko woon foofu mu fanaan yooyu màtt ko ginax yi yéeg ci kawam mu sonn fa tumuranke fa bu subaa du ko def donc kon il faut il faut que ñuy <laughs> il faut que ñuy sanctionné <laughs> il faut que ñuy sanctionné euh, mu mel damay jox euh, Mouhamadou Lamine Thiam euh, ci ci ci ci décision yi nga xam <laughs> kaso bi pour mbugal nit kaso yi dàppwul ak nit kaso yi dañ ko war a toj rëbës gi nii dañ ko war a toj dëppawul ak àq ak yelleefu doomu aadama mm. dégg foofu nag imam non mais il faut non non mais il faut non nañ ko nañ nañ kaso yi du yoon na caam wax ba pare caam kaso du yoon kaso yi niñ émission <laughs> <laughs> ñoom ñaar émission à part la Mouhamadou Lamine euh, gis nga décision yi nga xam ni euh, moom la gouvernement bi jël ci wàllum foncier bi euh, ku ne xam na ni ci jamono yi ñu weesu litige foncier yi bari na nangu nañ sama kër toroxal nañu ma toj nañ sama kër rawatina nag géej gi nga xam ni moom la ñu am fii pour di fexloo daanaka boo demee léegi da nga gis kër gu ñu tabax ci biir géej gi à moins de cinquante mètres même ci tefes gi danga gis dañ fa tabax ay kër ay gratte-ciel ay immeuble yoo xamante ni am na benn documentaire benn article bu TV5 Monde def di wax ni les plus grands dealers du monde dañu ñëw fii senegal ibbi fi ay entreprise euh, ci wàllum immobilier ñoom ñoo tabax immeuble yooyu. waaw waaw euh, kii ni Bamba. mu mhm. euh, ngi may ah, <laughs> la ñu bëgg njëkk a jaagal. Ah, loolu la ñu njëkk a jaagal wa <laughs> fayuma ko de noo garaawul. dëgg imaam génn euh, si foofu. maa ngi fi boo boo xoolee euh, lan moo tax ñu ñu ñu ñu fal Sonko. Mhm. loolu rek la ñuy delluwaat lan moo tax ñu fal ko. Mhm. ñu jéem a parce que ñoom ñoo ko oote ñoom ñoo jub. jubal ak jubbanti. waaw mhm. te moom moo ko génne de moom moo ko wax. donc nit bu waxee dara dangay fexe daal di ciy nekk. problème bi moo jënd leen fal pour ñu réécrire l'histoire du Sénégal. jubbanti mbir yi. redresser la barre redresser la voilà mi ngoog. Mhm. loolu moom mooy li nga xam ne benn la bi si topp mooy dafa am ku ñuy wax euh, euh, wàllu esclavagisme ñaata at la durée. 400 ans. mais benn nit moo ñëw ne jeex na. Mhm. def naa mooy George Washington. Abraham Lincoln Abraham euh, Lincoln. waaw benn nit moo ñëw ne jeex na. te loolu sa américains yi mosuñu ko bokkul woon sax ci seen kii que ni américains noirs yi. Mhm. war nañoo mën a génn ci seen. kii parce que dem nañu ba. lu naan la dialectique du maître et de l' esclave. dafa dem ba nga xam ne esclave bi. moom moo mujj nekk maître. Euh, maître bi. pourquoi parce que dañoo dem ba conditions yi léegi mëntuñu il pouvait plus se passer d' mais loolu volonté politique moo ko indi ak fit. ak doole bu la yàlla dégg nga ne lii dafay jeex mu jeex. ci lañ ko faat sax moom après. mi ngi noonu. kon loolu yàgg na am ci monde bi. léegi nag euh, li nga xamee ni ñun ñëpp ñoo ko bokk. Sénégal du jeex ren. Sénégal du jeex dans cinquante ans Sénégal du jeex dans cent ans Sénégal du jeex dans mille mais da ngay xool affaire bi kañ la commencé. avec ab Ablaye wadd ñun daan nañu dem foofu noonu am na fi nga xam ne tali bi fa la daan jeex moo demee kiw professeur yi. waaw professeur yi euh, ni ñu ko wax te euh, professeur yi fu ñu fu ñu fu ñu nekk ci. Euh, kii bi noonu waaw. ta fa foofu fa la affaire bi yemoon. ay ñax rek ci desoon. gars yi naan ay àll kanda. Mhm. foofu dafa xonkoon tur mosuñu xalaat loolu. mais problème bi mooy que ni demal Gabon. ci laay dem exemple parce que foofu laa gën a miin. gis nga président bi bu bëggee sangu di géej. dafay jéggi tali bi. Ah. day jéggi day jéggi tali bi comme ñun suñu tali bi noonu la mel exactement. noonu la Espagne mel noonu la xoolal so bëggee sangu ji géej day jéggi tali bi. demal Radisson Gabon képp ku dëkk Radisson boo bëggee sangu piscine da nga sangu piscine ci biir Radisson mais boo bëggee sangu ji géej da ngay jéggi tali bi. problème bi loolu la. loolu mooy 100 mètres yi. ah mi ngoog. ëpp na 100 mètres yi sax. xoola da ngay jéggi tali bi. amul dara li nga xam ne tabax nañ ko. la entre géej gi ak kii tali moom moo fa nekk. amul dara lu ñu fa tabax. lii nag problème bi mooy que ne Sénégal nag problème li li le truc mooy leen rek mooy tax chaise bi ñu leen jox nañ ko mérité rek. mooy fi ñu suñu loxo boo jëlee nit mu nga voteel ko. Mhm. da ko jox sa kaddu. ak sa loxo. lépp lu mu boo xësee ba voteel ko ba mu commencé nekk président lépp lu mu wax yaa ko wax lépp lu mu jëf yaa ko jëf te la plupart des sénégalais lan moo tax ñu bëgg lii ne plus jamais ça redresser la barre problème bi loolu la léegi nag problème volonté politique fii la seen histoire ñuy ñu leen di tudd ba ilal abat wala ñu xam ne ñii il sont comme les autres mhm. mooy que ni il faut nga am fit nga xam ne lii warul am mhm. dëgg moo tax ñu teg leen fi donc dëgg boobu la ñu war a donc est-ce que pression na tax ñu dellu ginnaaw ci seen ay décision mm-hmm. mm-hmm. euh, ba en deux mille dix neuf defe naa dafa am na bu mu bokkoon. Mm-hmm. lan moo tax nit ñi bu mujjul sax bokk. mais lan moo tax nit ñi euh, fan woon ko bokkoon na ci li joué lu rëy ci li ñu ko fan dafa ne. marchand ambulant yi dañ fiy jóge pourtant Ablaye Wade dafa retourné reculé woon marchand ambulant yi gën a am fit mu ne marchand ambulant yi dañ fiy jóge ñu ne duñ fi jóge mu ne bu yóbboo sax ngeen bañ ma voteel mais fii di ngeen fi jóge ñu bëri ci lañ ko faa man de wax dëgg yàlla décision assumer say décision ah parce que doole lañ la jox mais doole bi da koy teg ci dëgg problème bi loolu la gis nga ñoom ña nekk dëkk foofu sax ñoom ñoo la gën a xam ne nekkuñu ci yoon <laughs> ñoom ñoo la ko gën a xam tey boo ñëwoon taxaw ni dama koy dindi lenn rek booy képp ku dëgg dëgg ñor da da ànd ci décision bi mm-hmm. te dans cent ans dans deux cent ans suñu arrière suñu sët yaat sëtaati sëtaati sëti danañu ñëw profitoor ci ni kat lii ñun ñëpp ko bokk te buñ ko defee keneen dootul am fitu tabax fa xamul tax mm-hmm. dañu naan ah xaar ma baña tabax wallaay parce que xaw ma régime bii di ñëw lu muy indaale mm-hmm. par exemple bu tey ñoom bu ñu fi jógee ñeneen ñëw duñ ko ñemee tabax parce que dañ ne ñii di ñëwaat xamuñ lu ñuy indaale kon yàq xaalis lay doon donc c'est une lu li nga xamee ni sénégalais ñoo leen ko demandé mais dëgg moo leen ko demandé dëgg ci boppam moom moo leen ko exiger léegi nag ñu ngi leen di seetaan parce que aussi suñu dooleel suñu dooleel lañ leen jox bi si topp mooy dafa am quatre choses yi nga xamee ni mm-hmm. bu ko Sonko ak Diomaye réussir réussir nañu seen kii buñ ko magistère buñ ko réussirul duñ ko waxtee raté nañ ko mm-hmm. mooy wàllu paj mi la santé santé bi mm-hmm. a ñàkk xaalis taxul nga bañ a faju deuxième chose mooy wàllu mbay mi troisième chose mooy wàllu njàng bi école école école publique yi amaat même daraja bi mu amoon quatrième chose moo nag may dëkkuwaay bi gis nga est-ce que xam ne ni euh, transformation kër mhm. transformation kër kenn war ko boo tabaxee ci kër nii si benn quartier normalement am na ay lois yi nga xam ne waroo ko transformer Mm-hmm. Ah, et puis amuloo droit gars yi amatuñ ko léegi utatuñ ko sax. amuloo droit sax transformé ko. Mm-hmm. pour nga soppi sa kër ni nga ko defaree woon. waaw mais so balaa soppi gi mooy autorisation de construire. gars autorisation boobu sax lañ la warul jox. Mm-hmm. xam nga tax parce que logiquement yow waroo am sax xalaatu transformé. parce que dañoo waroon am société bi nga xamee ni ku ci am 18 ans am 20 ans. yow ñu saqal la ay def ay politique de truc yi nga xam dañuy sàq ay ay ay kii ba pare nga xam ne yow mii. boo góor góorgóorloo tuuti rek. jaarale ko fa nga ko war a jaarale di nga am kër. di nga am dëkkuwaay. loolu moo war xam xam na yaa ngi comprendre c'est-à-dire xam na da ngay dem ci kër. kër euh, comme këru HLM mi nga gis euh, day nekk trois chambres salon ay kër yu ndaw. nga gis gars yi bu ñu demee mbokk njaboot bi di gën a màgg njaboot yi di gën a màgg gars yi di gën a transformer kër gi ngir xaj xajloo. loolu moo warul. esprit boobu noonu ñun dañoo jàpp ne dañoo war a dañoo war a génn dem uti. boo te loolu di koy def mooy que ne dans une société xoola en France wala aux États-Unis seen objectif nekkul nekk ay milliardaire mhm. pour population seen population nekkul ni dañoo war a nekk ay milliardaire loolu bokkul mhm. seen kii seen seen objectif ci seen dund mooy dund correctement mhm. te dund gu tey googu nag gouvernement bi moom moo leen koy assurer parce que dañuy fay seen impôt mais ñun xoolu ñun suñu xel ñun ñëpp ñu ngi xalaat kañ laa nekk bis bu ma ne la sa wayjur wala sa jegeñal ne la góorgóorlu nga jàng nga tax nga jëndal ma oto. Mm-hmm. góorgóorlu nga jàng ndax nga tabax ma tabaxal ma kër. Mm-hmm. mais jëndu oto ak tabax kër du réussite. du réussite de. Mm-hmm. loolu nécessité la. c'est yow amuloo dara nga dund sa àddina bi yëpp ñafe sa àddina bi yëpp amoo dara loo naan man réussir naa sa sa àddina loo ko jeexle mooy que ne am naa kër am naa oto. malheureusement Sénégal loolu la ñu nattee loolu du dund loolu du du du réussite. macha allah Maodo Lamine. problème bi loolu la pour mm-hmm. benn point rek. mooy que ni allez-y rapidement. Euh, c'est pas normal ak milliard boo mënti am. c'est pas normal yow kese. Mm-hmm. ñu jox la ay hectares yi hectares yi hectares. xëy na mën nga ko def pour bay. même te loolu sax dañ ko war a xoolaat ñu jox ko benn nit. loolu am na benn loi bi nga xam dañ ko sëriñ sëriñ moom sëñ Amine moom laay ñëw feelu foofu noonu. Mhm. loolu c'est pas normal. parce que boo seetloo ci école yi ak ci hôpitaux yi chaque fois dañuy tabax booy la daan teg xam nga ñu doon jaay beneen partie mais boo xoolee euh, hôpital bu nekkee ci koñ. wala école nekk ci koñ. da ngay gis ni dañuy bàyyi terrain bu rëy. nga yaakaar dañ ko bàyyi ngir lool mais parce que quartier boobu dafay màgg. te bu màggee dañuy dañuy dañuy soxla. pour gën a yaatu dañuy am espace beneen. si mhm. dëgg daal mooy dëgg. Mhm. ñoom daal bu fekkee ne xam nañu lan moo tax ñu teg leen fi c'est pour ñu jubbanti mbir yi mhm. pour que suñu génération yi di ñëw di ñëwaat ñoom ñu am li nga xam ne dinañ ko fi mën a fekk. c'est important internautes yi ñu ngi lay sant di la gërëm ñu bari sax ñu ngi laajte kat la. Euh, Mamadou Lamine Thiam bu RTS. voilà ndaanaan bi moom. moom bu RTS entre ah. <laughs> benn tànk baa ngi ci biir ngi fi rek bu bu RTS bàyyi rek ñu jël. Ah, bu rek ñu jël. ah, ah kon RTS na la téye am benn wàll ñu am benn wàll. <laughs> am nañu fa sànq Papa Alé nga mu ngi noonu imam euh, lu am solo li nga xam ne initié nañ ko ndax ñu bari ñu ngi polémique sax mais waxuñu toj waxuñu dara dañu wax ñu arrêt le temps ñu mën a saytu te te saytu bi sax <laughs> moom nee nañ toj mm-hmm. te saytu bi mm-hmm. bu ñu ko defee yuuxu dina jub fu ñu ko fogeewul littoral bi mm-hmm. a toj comme ni Maroc def. mais Imaam est ce que ñi fa tabax sax jamono yi bëgguñ toj sax. maa ngi ñëw. est ce que buñ lañ bëggoon dana leen arrangé xam nga d'accord ak yow xam nga lu tax ma <laughs> d'accord ak moom Nabou soxna Nabou Nabou. Mhm. maa ngi lay waxal ne la cinq ans yi ñu jëm. Mhm.